awliyaayika maan li yason kàddu yooyu ngeen dégg mu jëm ci cheikh Mouhamadou Lamine Baara wan leen màggal gu cheikh Mouhamadou Lamine Baara ca Mbàkke Kajoor gane àdduna ci Tuuba génne àdduna ca Mbàkke Kajoor gannaaw ba nu amee ndigal lu bàyyi ko ci sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir xalif général kullu murit yàlla na fi yàgg tànd ku wér baay Amadou Maxtaar xalifa Daaru Xuddoos sëriñ Moustapha Cheikh Sidil Muxtaar jëwriñu sëriñ Baara ak njabootu sëriñ Baara gépp ñooy yëgal réew mi ak bitim réew bokki julit yépp bisub Cheikh Mamadou Lamine Baara gi nga xam ni daanu ko màggal ca Mbàkke Kajoor fukki fan ñaar ci weeru décembre ñoo ngi yëkkati suñu kàddu ci turu Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ni mooy jëwriñu Cheikh leen Bara mu feggoog njaboot gi yëpp njabootu Cheikh Moustapha ak njabootu Cheikh Mouhamadou Bara ci bis bu màgg bi nga xam ni moo di màggalu jumaadul ula te muy bis bi nga xam ne ci la Cheikh leen Bara fane ganee woon àddina ñaar fukki fan ak juróom-ñett eh, ci weeru olof wi ñuy wax jumaadul ula incha allahu muy dëppoog fukki fan ak ñaar ci weeru décembre sëriñ bi nag di ko def ci ndigal ak kilifteefu sëriñ Touba Cheikh Maodou taxa muy ñaan yàlla muy ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér ak ci teewaayu Baye Ahmadou Makhtar muy bis bu am solo ci lislaam ci yoon rawatina ci yoonu murit ndax mooy bisu faj aajo e, mu ci woo mboolem jullit yëpp ak am di jàmm yi ak bokk yi di leen ko yëgal rawatina njabootuk cheikhul xadim gi di ko yëgal itam ñi mu bokkal lislaam bi yëpp muy kilifa kilifay diine yi nga xam ni ñoo ŋànk euh, boppi turuux yi ci biir Sénégal ñoom ñëpp sëriñ baa leen ko yëgal di ko yëgal daayira Seexul Xadim yi yi ne rawatina ñi nga xam dañoo aju ci biir kër gi li nga xam ne nag moo ci ëppal sëriñ bi soxla solo moo di njàngum alxuraanul karim yi ndax dañuy fàttaliku Cheikh Mouhamadou leen Bara te li liñ koy fàttaliko bokk na ci nitu alxuraan la woon sëriñ baa ngi ni sàkku ci ñoom ñu jàng alxuraanul karim te yéen a yool bi Cheikh Mouhamadul Amin Baara ak bépp jullit boo xam ne yaa ngi barsàq te ñuy fas jàmm ci réew mi sëriñ bi di ko yëgal ki nga xam ne mooy président Macky Sall euh, di koy sant bu baax a baax ci li nga xam ne weesu na lépp di ko yëgal premier ministre ak mboolem gouvernement bi yëpp di ko yëgal président assemblée nationale Mamadou Mame Diop di ko yëgal soxna Aminata Mbengue Ndiaye di ko yëgal président Abdoulaye Daouda Diallo di ko yëgal mbooleem opérateur économie yi directeurs généraux yi ñëpp ñi leen ko yëgal ak commerçant yëpp di leen ci woo sëriñ baa ngi ci woo mbokk yi ak taalibe yi ak am di jaam yëpp bàyyiwuñ kenn te xam ni bisu faj aajo la boo xam ni ko sëriñ bi waxee woon loolu rek lay feddali képp koo xam da ngaa am soxla wala nga xam am aajo euh, boo ñëwee ci bis boobu nga fas ko ci suñu borom dina la ko dina dina la ko saafara incha allah wa axiru da'waana in alhamdulillahi rabbil alamin di sant yàlla bu baax di julli ci nabi Moustapha di santaat Serigne Touba di wax rek ne bis bii bisu lislaam la waaye rawatina yoonu murid wépp dax kii ñu koy wooteel di sunu maam Cheikh Mouhamadul Amin li mu doon ci yoonu murid ñëpp xam nañ ko bisam biit li mu dëppool ci yoonu murid ñëpp xam nañ ko mu doon ko yàlla teral ko yàlla yëkkati ko yàlla cërali Sëriñ Tuubaa lislaam nañu woo waaye rawatina ñaari kër yi ko seq muy Daaru Xuddoos ak guy mbind waaye bis bi ni ma ko waxee rek bisu yoon murid bépp la ndax ni boroom taxawee ci yoon wi moo tax li mu seq ak lislaam moo tax ñëpp war cee ñëw kon ñi ko moom dañ leen a jëlale waaye dañuy wax ne ñi mu bokkal nañ ñëw ci bis bi nañ ci teew si ñu ñaan ñëpp teew si ñi ñu woo ñëpp. man nag li ma ci féetewoo te di ko fàttali mooy ñu setal dëkk bi ba nga xam ni képp koo xam ne ñëw nga fi di nga fi ñëw ci teey génn fee ci teey benn lor bañ la fay fekk jenn jàngoor jàngoro itam ñu bañ la ko ci wàll muy muy bis bi nga xam ne ci la ñuy set setal mbàkk Kajoor muy vendredi le premier ci lañu ci la ñu ko fas le premier décembre ci la ñu ko fas yéene set setal kon dëkk yi war mbaak Kajoor yëpp di commune bi ci ñoom laay jëkke woo leen di woo Daaru Musti di woo Daaru Marnaan ñoom ñi nga xam ne itam suñu dëkkandoo lañu di woo Daaru Musti ak ñi nga xam ne ñoo nu jege ñëpp waaye Touba gi itam may woo ñëpp kër yi Serigne Touba yi yëpp këri Maam Maaram yëpp këri Cheikh yi yëpp bàyyiwuñu kenn di woo transporteur yi nga xam ne ñoom la ñu bëgg ñu yóbbul ñu nit ñi ñi nga xam dañoo yoroon wàllu set ci dëkk bi ñëpp bàyyi wuñ ci kenn ñu leen di woo ñoom ñëpp di gën a soññi daayira bi nag surtout rawatina jigéen ñi kon ñu ngi woo ñëpp bàyyi wuñu kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Mouhamadou Lamine <coughs> ci jikko ju rafet ji ca yërmande ja ca xam-xam bu bari ba ak cër bi mu am ci boroomam ak cër bi mu am ci sëñ Tuba kon nag bu bisam dikkee nu di ko war a amal ca Mbàkke Kajoor fa ndigalam nekkoon sëriñ bi mi ngi ci woo bokk yëpp di soññi itam mbokk yi ñu dëkk ba yëpp muy bokki dëkkandoo yi ak bokki taalibe yi moo waxoon ne man de bu ma wootee ku ma wuy si dinaa la defal ñaar dinaa la defal ay leer dinaa la defal teraanga eh, eh, eh, baatin joo xamante ni loolu moom moo xam nam koy defee lu waaye am ci yitte andil boo dikkee déeyaalal ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke man de sama woy jur mas na maa wax ni ma Mbacke Kajoor du ku fa ñëw te fekkoo fa lenn li sëñ baara boo waxee sa aajo ba mu àgg nga gas ci suuf tabbal ko ci suul ko sëñ baara na ko faj ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci turu safinatul amaan daayira bi nga xam ne moo lëkkale mbooleem sataati cheikh mouhamadul amin baara mbàkke yi ñu di leen di fàttali bis bi nga xam ne moom lañ baaxoo amal waxtu woo xam ne ñu ngi mal màggal gi di conférence boo xam ne dañ koy def at mu jot ren jii ñu jàpp ko ci le 10 décembre ci buñ nee ginnaaw suba la màggal gi bis bi nag ñu ngi ko tuddee sëriñ Massamba Diop Sam waaye itam di ko dara jaalee sëriñ mu Jaw Waalo bokk ci ñi nga xam ne ci ñuy toppoon Cheikh Mouhamadou Amine Baara waaye itam bis bi ñu tànn ci mawdu bu am solo thème bu am solo boo xam ne euh, fi jamono toll daf ko laaj ban gis-gis la lislaam am ci wàllu sàkku wërsëg ñu ci ànd nag ak boroom xam-xam bu mag di sëriñ Seexuna Buso leen bis bi itam mu ngi tàmbalee programme bi 21 heures incha allahu moom lay tàmbale euh, kon ñu bàyyi ko xel di ci woo ñëpp di ci sàkku fépp foo xamante ni bi daara nekk na fa rek ñu jàng alxuraanul karim daf ko addee Cheikh Mouhamad Lamine Baara nañ ko daan defee at mu jot képp koo xamante ni bi jàng na alxuraanul karim lim bi bu ñu ko joxee danañ ko teg ci loxol sëriñ bi kon ñu ngi woo ñëpp ci bis boobu waaye nag ñu tàmbali njàng mi bi weer wi tàmbalee ndax am na daara yoo xam ne tàmbali nañ ko jàngal ba ca bis ba buñ bis ba ñëwee nag ñu dajee fee nga xam ne ca Mbàkke Kajoor ca daara ja fas yéene faa jàng alxuraanul karim ngir ñaan ngir barke ci réew mi ngir ñaan tamit yiw wi nga xamante ni bii nekk na ci alxuraan mu wàcc ci mboolem jullit ñëpp. di ko yëgal waa Sénégal gépp di xam la ni itam le premier décembre di bisu set setal ba am nañu consultation gratuite consultation gratuite mooy lan seetal la saw yaram xool lu ci manqué lu dala dal ñu faj la ca duñ la laaj dara loolu nag fondation Bouchard moo àndandoo bëgg ndimbal ak tàllal ay loxoom Serigne Moustapha jëwriñ Serigne Baara mu boole waale ko ci liggéeyu Serigne Baara bi kon ku fay dem loo fas loo bëgg fas ko pajugaajo lay doon jërëjëf